mbind mu sell nee na ci jëf ya saar juróom-ñeent aaya ñett ba aaya juróom-ñeent ak aaya fukk ak juróom ba aaya fukk juróom-ñeent waaye bi muy jub damas te saasa leer gu jóge asamaan melax ba ëmb ko mu daanu ci suuf dégg baat bu ko ne sool sool lu tax nga di ma fitnaal mu wuyu ne yaay kan borom bi borom bi ne ko maay yeesu mi ngay fitnaal waaye jógal dugg ca dëkk ba te dinañu la wax li nga war a def ni ñu ànd moom nag taxaw waaru ba luu ci luñu dégg baat bi te gisuñu kenn noonu sool jóg xippi waaye gisul dara kon ñu womat ko yóbbu ko damas jirub ñetti fan gisul dara lekkul naanul waaye borom bi ne ko demal ndaxte maa ko tànn muy sama jëfandukaay ngir yóbbu sama tuur fa kanam ñi nekkul yawut ak fa kanam buur yi ak bani israyil te dinaa ko won coono yu bare yu mu war a dëkku ngir sama tur ci kaw loolu ananias dem dugg ca kër ga teg ay loxoom sool mu ne ko sool sama mbokk borom bi yeesu mi la feeñu woon ci kaw yoon wi bi ngay dikk moo ma yónni ngir nga dellu di gis te fees ak xel mu sell mi te saasa lu mel ni ay waasintóor génne ci ay bëtam mu daldi gisaat noonu mu jóg ñu sob ko ci ndox ba noppi mu lekk amaat doole